Assalamualaikum, man ma ngi tuddu madame naik nek euh, projet FERA mairie ville de Wow, Wow, merci beaucoup euh, programme bi nag yaakaar naa yàgg ko dégg mais c'est la première fois ñu participer ci par le biais de la mairie euh, comme ni Malal ñu partenaire bu stratégique par rapport ak ji surtout nag année bu ren bi ñu jël ay engagement ne dinañ leen jàppale sur le plan humain sur le plan aussi euh, des matériels donc tey loolu moo tax ñu ñëw fi tey remplacer euh, ñëw ci turu mairie indaale matériel bi nga xamante ne nii mairie ci boppam moom moo ko déplacé ak ay moyens boppam yebal ñu ñun ñi nga xamante ni ay ndawam lañ ñu ñëw fi ñun département de Guédiawaye cinq communes yëpp ñu ngi fay intervenir ñu ngi fay intervenir du lundi au vendredi chaque jour on est un projet boo xamante ne projet bi mi ngi duré depuis 18 mois monsieur le maire Alioune Sall ko fi mu nekk loo xamante ne nii ay population Guédiawaye ñoom ñoo ci ñoo ci bénéficié parce que des jeunes de la banlieue des jeunes de Guédiawaye ñoom ñoo liggéey ci projet bi tey dañu am fierté bu ñu ñëwee ñun en tant que jeune de Guédiawaye di jàppale projet bu mel ne euh, di di jàppale ku mel ne Malal ci li nga xam ne mooy ji parce que lu ñu yàgg a suivre la à travers la télé mais tey yàlla dimbali nañu tey ba ñu bokk ci ñi nga xamante ne nii ñi ciy taxaw la donc loolu sant la di ci sant ban mobilisation bi bëgg a ñëw ci jiitu ci nettoyage bi lan parce que ñoom ren particularité bi ñu wax mooy ñoom dañ ne investissement humain xaw ma ndax daan na am yeneen année mais ren xam naa ne ampleur bi mu am amu ko année parce que vraiment ils ont mis les bouchées doubles comme ni ñu koy waxee ñëw nañ auprès de la mairie demander à ce que ñu jox leen matériel matériel bu doy li ci xawoon a manqué sànq moom laa élucidé ne il faut que ñu am yenn yi woote naa auprès de la mairie par le biais du DRH woo naa ko moom mu jël disposition yónnee nañu oto pour mu dem indi leen ku muy ay bale brosse pour que tali nekk tali véritablement tali boo xam ne tali bu bu ne génn na tali boo xamante ne nii ñëpp dinañ xam ne maanaam tali bi ko xam daal à travers tey bésu tey bi parce que suuf si da ko envahir ñun ñu fi dëkk xam nañ ko de telle sorte que genn wàllu tali rek ngay gis mais tey comme peel ñëw na buré di ñëw na bu bale brosse ñëwee incha allah rabi au de la journée dinañ gis ne euh, tey liggéey am na fi daal donc loolu particularité boo xam ne bi def na ko tey mooy restaurer tali yi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi ñoom ñoo fi nekk au niveau de Guédiawaye